maaleykum salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyu dem contentement ak mbégte janoog yéen sax suba ngi dindi leen li gën a fas ci bopp xibaar yi vendredi 19 février 2021 nuyoo bi dama ci jiital borom kër gi Pape Thialis Faye di nuyu ñu ma toogal rek après wéyal ndëg yéen ci lépp dara ren bi may nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay wante maa ngi fay bu baax a baax maa ngi nuyu bu baax suñu mbokk internet yépp ñu ngi topp ci Leewtoo TV di nuyu waa Diourbel bu baax sama dëkk. Assane Waalo nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la amaan mbégte jàkkaarloo ko euh, internetu te euh, Leewtoo TV di leen pour indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi. journal suñu lamb xëy ci xëtam bu njëkk après Eumeu Sène Gris 2 Lac 2 la tempête de Modou Lo va-t-elle sur Ama Baldé. jërëjëf Ndeye Mbacke noonu la ko journal bi xamalee ci euh, biir journal bi nee na Modou Lo gannaaw ba mu daanee ki nga xam ne moom mooy seen Sène Lac de Guiers 2 ak. Euh, euh, ak Gris Bordeaux mi ngi noonu nee na ngelaw lu gaaw li nga xamante ne bii moom la yor est-ce que du yóbbaale Ama Baldé mi nga xamante ne bii moom moo nekk ci kanamam war a jàmmaarloo ko dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la journal suñu la mu tey def laaj bu am solo nee na ginnaaw bi Modou Lo daane Gris Bordeaux le 15 juillet 2012 teg ci Lac de Guiers 2 le 28 janvier 2018 doog ci toftal Eumeu Sène le 28 juillet 2019 est-ce que tempête Modou Lo dina yóbbaale kii di Ama Baldé loolu nag du yomb ndax euh, combat royal la Ama Baldé objectif am mooy jël titre bi. moo tax combat boobu daal dina jafe trop ci Modou Lo waaye nag ñu fàttali que combat boobu Gaston Mbengue moo ko tëgg mi ngi ko tëggoon le au mois de décembre 2019 combat boobu euh, ci tey euh, Babacar am na un an deux mois ba léegi euh, soo matagul ba léegi xamaguñu fan la wànneen di mujjee ki gët ba léegi waaye nag bagaay yi di génnoon def benn sortie nee na ñu ngi ko prévoir mois de mars après ramadan bi li ci kanam rawati ba ñu toog xaar paka la défi ko kii di Pakala nekk Mbour Géej nee na moom ñetti mbër yi kun ko ci jox ku nekk mu defal la bagage Malick Niang ak ki nga xamante ne bii mooy Gris Bordeaux ak Eumeu Neex nee na pare ngir jàmbaarloo ak ñoom ndax fi mu nii gëj naa bëri te yaramam day xasa dëgg la Mbaye Babacar Pakala nee ne journal bi nee ne Pakala défie le tigre le boxeur et le requin le tigre nag moom mooy Gris Bordeaux muy tigre de Fass le boxeur moom mooy Malick Niang et le requin léegi nag euh, Pakala journal bi nee ne moom pare na pour euh, affronter ñi ñëpp waaye nag Pakala si journal bi également wax na lu tax moom euh, nee na promoteur yi ñu ngi koy sollicité waaye mbër yi ñu koy jox dañu ndaw trop ci ay bëtam. kon daal fa mu teg bëtam joxagul ko mbër yu tolloog ñoom. loolu moo tax ba léegi amagul combat. ba léegi journal suñu làmb grille de Serigne Ndiaye de général face lacet 3 tigre au front. ñett ñooñu mel ni dañoo bokk ci yaakaaru Fass si Assane muy Gris 2 Serigne Ndiaye ak général ba tax na li nekk seen kanam di leen xaar bari na torop ni nga ko waxee doonu la Babacar Gris kii kii di Gris 2 Serigne Ndiaye 2 ak général bu Fass ñii ñooy yaakaari Fass journal bi nag nee na face la lâche trois euh, tigres au front maanaam ñett ñi ñëpp am nañ combat Gris 2 mi ngi war a jànnoog ak Abdou Diouf euh, Serigne Ndiaye 2 mi ngi war a jàkkaarloo ak Sokosim euh, kii di général bu Fass mi ngi war a jàkkaarloo Koli Faye waaye nag ñu fàttali que ne Gris Bor Gris moom ci defet la jóge rëg-rëg moo ko daanoon waaye Serigne Ndiaye 2 ci victoire la jógee ba mu da après bi mu daanee Libidor kii di général bu Fass moom ñaari victoire la tegale ndax daane na Nongolo daane na également Pape numéro 2 kon mu mel ni ñoom ay ay espoir lañu ci biir écrit ay espoir lañ te sentir na leen un jour ñu devenir euh, tigre de fas incha allah. mu mel ni foofu te CLG bu Thiès yëf ya leer na succession de Maïssa Thiam Maïssa bu Abibou Diallo nouveau président. mu mel ni léegi aaya ba daanu na way wa daanu na waa Thiès kaay ñoo doon jàmbat euh, président CRG bu bees léegi gouverneur ba taxawal na ko mu ngi wuyoo ci turu Abibou Diallo euh, tabbal nañ ko fa démb asam wéy wa daanu na comme ni nga ko waxee temps yëpp ñu ngi koy topp di laaj kañ la wéy wi di daanu dépp démb nag wéy wi daanu na Abibou Ndiaye le gouverneur bii di Moustapha ndaw bu nekk Thiès fal ci bopp CRG bi waaye nag am na lu jaaxal nit ñi mooy abi bu Diallo bi nekkul woon candidat candidat yi mi ngi tuddoon Thierno Ndiaye ak Babacar Diop ñi ñoo bëggoon succéder sa Ndiaye waaye gouverneur bi daleen fa teg indi kii di abi bu Abibou eh, Diallo bu Diallo nag du gan yàgg na nekk ci CRG bi yàgg na également di anime ay affaire ay émission lamb ci Thiès nee na champion bu fa mës a eh, dëkk wala bu fa mës a ñëw bu Ndiaye mais xam na la Euh, ba léegi soq Gamou Gueye de Baba Diaw prêt à ouvrir Baba Diaw moom mi nga xamante ne bii moo taxawaloon combat boobu dox ci diggante soq ak Baba ak ki nga xamante ne bii moom mooy Gamou Gueye euh, moom nee na pare na ngir sajjat làmb ji nee na pare na ngir ubbi bal dëgg la Mbaye Babacar noonu la ko bi suñu làmb waxee Baba Diaw prêt à le bal Baba Diaw bi nag moom moo tëgg soq ak Gamou Gueye de combat bi mi ngi prévoiroon le 15 euh, mars bële passé. Euh, maanaam si ëllëg sa boobu lan bi mu waree na bi mu waree combat bi waroon am. ci ci ci ëllëg sa ci la mbas mi am. la am ñu arrêté ko léegi mu obligé woon mu mu euh, reporté ko maintenant nag CNG daf ko euh, suñu laam moo ko wax ne CNG daf ko jox date bi pour mu tëgg première journée bi uniquement pour. defal ko maanaam. mu mel ni kon ñi ñi ñi waroon na ñi waroon a mujjee tëgg bu làmb ji ubbiwaatee ñooy njëkk a tëgg. baabakat loolu mooy yoon boo amee benn journée daaw nga reporté ko. Hmm. bu saison bu ubbee normalement yow yaa war a njëkk a tëgg. yaa war a njëkk a tëgg. combat capital contre bébé Bismi papa booy jinne pour se relancer. papa booy jinne moom mi leen di séeri Ndeye Gueye borom cadeau bu mag ba ndax ba Ndeye Gueye di anniversaire téeméeri junne la ko joxoon cadeau. am na combat capital nag ci digganteem ak bébé bismi ngir wonewaat boppam jóge ci jafe-jafe yi nga xam ne ci la nekk. loolu la journal bi wax Babacar euh, boo Papa Boy Djiné vers un combat capital contre bébé bismi capital euh, combat bu capital la jëm ci bi muy dajeek ak bébé bismi lu tax mu ne combat bu capital la ndax combat bi mu jógee daf ci amoon défaite Papa Yade moom moo ko daane woon le 17 mars 2019 loolu tax daal journal bi ne. Euh, bé Papa boo Djiné bi amatul erreur daanuwaat ñu fàttali nag combat boobu du yomb ndax be Bébé Bismi moomu tamit ci defal la jógee Ada Fass moo ko daanee woon. ba léegi Jackson pour confirmer j'attends que Naaru Sogas. Jackson champion bi nga xamante ne bii moo war a jàmmaarloo ak Naaru ak Naaru Sogas boo xam sa cosaan nee na ma ngay xaar Naaru Sogas te pare na ci côté yëpp te nee bu jàppee Naaru Sogas Naaru Sogas dana xam ne pom du moroom mu new. dëgg la Mbaye Babacar Jackson attend Naaru Sogas pour confirmer. Jackson nag ñu fàttali ko moom moo daane woon Pape Ndoye le 14 décembre 2019 ñëpp ñu ngi koy fàttali kaw bi mu ko defoon ci stade Iba Mar Diop mu bett ñëpp Jackson mii nag journal bi nee na war na confirmer ci combat bi muy war a janok naaru Sogas amul erreur amul droit à l'erreur donc war na confirmer euh, daane naaru Sogas pour confirmer victoire bi mu amee woon ci Papa Pape Ndoye. ba léegi ci làmb la ñuy desandi dem ba Gambia People. France Leket Bara reporté combat bi waroon am ci diggante ñaan le 28 mars fee ca Gambia People mu mel ni euh, Sénégal dañoo takkoon seen i dëbës gannaaw ba mbas mi xuusee biir Sénégal ba jaaxal ñu. Mhm. dañoo takkoon suñuy dëbës daal di gàddaay wuti fale ca Gambie yaa ngir di fa tëggee làmb. Mhm. waaye daa mel ni foofa tamit Assane ma ngay bëgg a tàggat témbe mhm. ndax président Adama Baro dafa joxe dogal dafay yëkkati dogal nee na incha allah le mars bu jotee. dañuy dakkal euh, la lépp luy xumbaan lépp la nga xam ne xumbaay la ak rumbaay ca dëkk boobaat di Gambia yaakaar dafa tas euh, Babacar ndaxte sénégalais yëpp yaakaaroon ne comme Sénégal amul làmb Gambie moom ubbi nañ seen i affaire mën nañ permettre ñoom ñuy acti ñuy continuer foofu seen activité malheureusement pour ñoom ndax démb ci jeudi aadama euh, Barrow dafa génne benn dogal ne day arrêter lépp luy activité sportive wala li ni demee loolu nag nee ne dafay arrêter ndax mbas moo fa nekk loolu nag euh, li ci xaw a euh, neex peut-être euh, décision boobu le 8 mars lay commencé. ñu fàttali ne Fallou Ndiaye war na fa tëgg avant 8 mars Jamaïcain également moo ci nar a yàqule moom muy prévoir woon combat Leket Baar ak France le 28 mars boobu. mais pourquoi pourquoi Jamaïcain mënul avancer datam avant avant le 28. waaw loolu avant le 8 mars loolu solution la mais il faut que mbër yi d'accord ci. ak ñi mu ci àndal yëpp bu nu ci waxtaanee yaakaar naa ne solution la pour ñu avancer date bi avant 8 boobu. am na solo. ba léegi Eumeu Sène Lac de Guiers 2 sans PPV au Sénégal. ma nga naa Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 combat boobu nga xam ne suñu papa Gaston Mbengue moo ko taxawal te moom ba léegi nee na jàpp na datu le 4 avril incha allah bu ci yàlla àndee combat boobu nag ku ko bëgg a seetaan am naa yaakaar ne PPV nga koy seetaan. dëgg la Mbaye Babacar Gaston dafa def ñaari proposition nee na combat bi la 4 avril la koy la koy la koy tëgg hmm. waaye ñi nekk Sénégal. du leen defal PV view ndax ne dafa signé ak ñetti tele RTS ak euh, ITV ak 2S euh, nee na ñii direct la ñuy def waaye waa diaspora bi ñooñu lay war a nar ñu la war a defal euh, PPV bi nee na ñooñu bu ñu ko bëggee seetaan PPV la leen koy def mais bu dee waa Sénégal moom leen ko am en direct ci ci télé yi. kon baax na. incha allah CG Saint-Louis Maxu Meng menacé. Euh, jërëjëf Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la waa Ndar Géej mel nii ñoom tamit ña ngay dànkaafu ka fa jiite ka jiite ka jiite ser serge ba di wuyoo ci turu mbaxu mbeel nee na moom mi daal yàgg na fi yàggaay ba nga xamante ne bii war naa jóg place bi jox ko keneen mu toog daal di doxal moom tamit dëgg la Mbaye Babacar serge de Saint-Louis mbaxu mbeng menacé lu tax nag journal suñu laamu wax loolu mooy que ne Makhum Mbengue dafa euh, xaw a yàgg loolu lan wax nee na def na fa 10 ans ba léegi te activité yi demeewul noonu looloo tax daal ñi nekk ci euh, wetam wala ñi yëngu ci làmb foofa sa Saint-Louis nee na Makhum Mbengue mi daal yàgg na fi te CRG bi soxla na ay tête yu bees yoo xam ne nii ñoom la euh, war nañu mën a doxal làmb foofa sa Saint-Louis. mu mel ni gars taxaw pour indi changement bu bees sax. waaw comme ñu fi ñu yàgg comme Bira Sène dem na comme Aliou Sarr dem na Bira Sène ñëw euh, Thiès également seen CRG bi am na ku kii dem na may sa Ndiaye ñu teef ñu indi abit Diallo mhm. ñii tamit xam naa ne ñu ngi bëgg nekk ci yoon boobu. jaajëfal naa la bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës mais Babacar looy tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp ñu doon topp ci revue de la revue de l'arène bi ñu di amal fii saa su nekk di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm wante di jaajëfal bu baax a baax sama xarit euh, yaa xam Samb waa kër Adja Ndogoy Faye Samb et frère moo ma génne fii wante ki ko ñaw mooy euh, moom moo boroom Fall création kontaan naa ci moom bu baax a baax baa amal jàmm bu baax. Euh, Ndeye Mbacke maa ngi lay remercier comme d'habitude di remercier waa Linguère di jox dig daje internetu Leewtoo TV ci yeneen i jotaay. di leen jaajëfalaat bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci xibaaru làmb loolu jox dig daje ëllëg allah ci Leewtoo TV.